xam nga ni karaw karaw su bëree si doomi aadama du yóbbu xel man xam naa si dara karaw du yóbbu xel xam nga boo toogee sa saal xam nga seen TV dafa neex da am clim dafa neex te seen TV seen yu bees yi buggaan àndi dafa neex boo toogee ah raaj say tànk ñu sol la ataaya nga naan ba màndi ba sa biir ne fecc di wax lu neex Matar sama teel xanaa déggoo lu la wax dina créer ay Sidy Diop yu dul jeex yoo xamante day déranger musique te doo si mën dara musique c' est pas pour une seule musique dafa nekk loo xam ne carrément tey lu collectif la c' est pas métier boo xam ne carrément individuel la suba teel dina créer ay yeneen Sidy Diop dina créer lu doy waar mosoo bëgg Sidy Diop da ngay xaañoo naxaatekat nga mun ngaa nax journaliste yi parce que dana am soo complexe ay naafeek lañu mais munoon nax ñu six mille xam nga ni karaw karaw su bëree si doomi aadama du yóbbu xel man xam naa si dara karaw du yóbbu xel xam nga boo toogee sa saal xam nga seen TV dafa neex da am clim dafa neex te seen TV seen yu bees yi buggaan àndi dafa neex boo toogee ah raaj say tànk ñu sol la ataay nga naan ba màndi ba sa biir ne fecc di wax lu neex Matar sama Sabatel xanaa déggoo lu mu la wax dina créer ay Sidy Diop yu du jeex yoo xamante day déranger musique doo dara musique est pas pour une dafa nekk loo xam ne carrément tey lu collectif la c' est pas métier boo xam ne carrément individuel la suba teel dina créer ay yeneen Sidy Diop dina créer lu doy waar mosoo bëgg Sidy Diop da ngay xaañoo naxaadekat nga mun ngaa nax journaliste yi parce que dana am sa complexe ay naafeek la mais munoo nax ñu 6000.